ma gaañ eh, di len sét di len ziar man la wa sen xarit mari bashir ah mel na ko ne ñu wa fi ni xam ngeen ne tay nak bi nekk ci at bi te duma nak tok nak ma sha allah xoro ah waxtaan ak suma gaay yi mel ko ni akonté ak ah sha allah ma sha mel ko ne ma ñëw pour rek waxtaan ak yeen ah ñew wish len happy new year mel ko ne comme ma sha allah mom mel ko ne alhamdulilah yalla defal nañu jamm ba nga nañ ñu bi si am tal wér ak tamit am uh, si uh, laaj naka lañ ko doon ñaanee ma ne ko ne ñu ngi ñaanal képp koo xam ne yaa ngi si lopitaan bi feebar ñu ngi laa ñaanal yal na la yàlla may wér yàlla may la nga jóg ak jàmm ak salaam ñi nga xam ne tamit dañ jiitu ñu la ñoo ñaanal yal na leen yàlla xare àjjanatu firdawsi yàlla suuf seddee leen dee di seen i noflaay yàlla jégal leen seen i bàkkaar ñu yàgg fi loolu ñun te di leen ñaanal saa su nekk mene ko ne a ah, di ñaanal képp ko xam ne mu ngi si jafe-jafe yal ko yàlla génneel lépp jafe-jafe boo xam ne mu ngi am mi ngi jànkuwante ak moom waaw képp ko xam ne am na si loo nekk ku képp képp ku nekk si ay project ou whatever lu nit nekk rek teg loxoom yenn la ko yàlla yombalal mu doon loo xam ne tamit lu yomba si yow la waaw mene ne ko ne ba loolu passé nag mene ne xam ngeen ne tey nag du nekk si jeexantale at bi te duma ñëw na indi leen reer waaw reer rek laa defar nag waaw reer bu em macha allah bi ñëw rek pour defar reer yi ñu yeer yi na ma gën a xam ah comme que moom génne gi fu mu nekk moom jafe na lool ak with this covid ah, ak yu kenn xamul soo ñu def ko rek mu em si kër gi macha allah ah mu nii soo mu ngoog léegi fu mu nekk ah, dama la ñoo bàyyi foog naa ne ñu dem ah, wan mool leen reer bi wan leen fireworks si as well tamit suñu fii ñun fuñ nekk nii te xam ne twelve o'clock moom fii ba foo nekk rek fireworks su ne taay taay taay rek boobu nga àndaaw moom ah la ko ne ah macha allah su ko defee ñu demee nag def noonu ba pare nag ma may yàgg di defar vidéo ngeen maa yàgg di ma seetaanal rek macha allah rabi yàlla defal leen ko jàmm yéen tamit. ah tamit su ma am macha allah bu mu doon di Fatim Aliou Kitchen ma ne ko ne dem leen ngeen seet ko moom te mu ngeen def lu rafet a rafet Fatim Aliou Kitchen on YouTube. nit ku baax nit ku ñàkk ki ñaan nit ku macha allah yow moom man xam naa yow xam nga fóot naa la ah macha allah nag képp koo xam ne rek yaa ngi yëngu si wàllum togga wala yaa ngi yëngu si wàllum whatever nga yëngu si YouTube bi rek maa ngi la leen wax ne dañ dem ma seet naka laa defee reer bi su ko ñu ñëwaat ak beneen façon. ma ne ko ne waa suma gars yi ma ne ko ne ma waroon ne nag naka laa ñëw cuisiner nag suma ay am ginaar li maa ngi am fii ko fuul. ganar ngeen ni maa ko raxas bam set mom la am fii nii ba pare fi ma am sama steak beef steak la mom tamit dama ko season mom tamit ba pare tamit maa ngi chicken wings mom dama ko def in butter wow mom non tamit dama mang ko amé waye mu ngi si maa ngi ko di defrost mu ngi wàcce motax mom is already season motax mom dafa dafa wàcce rek ma steam ko rek then after then ma defaral ko in butter pour tek ko pour haré rek pour optional waaw suuf mu ngi nii soo léegi suñu ma seasoning nii comme naxa ngeen ko xamee rek moom kii yu mari parce que lii mooy suñu all purpose seasoning bi maa ngi ko amee fii nii après tamit maa ngi amee suñu green seasoning bi as well après tamit maa ngi ko amee suñu seasoning salt bi soo damaa seet rek ñetta yi nii bii nag moom soo moytu damaa use green bi parce que green bi dafa saf tamit si ganaar torop sax soo naa use suma green seasoning bi après um, xëj na tamit am bii steak bi dinaa use xëj na all purpose bii man maa koy use woon c'est little bit dama ko bàyyi mu des waaw bii moom moom moom <laughs> xam nga moom moom mooy suma àndandoor waaw moom moom si lu nekk laa dem moo dama teg ko fii nii moom wax dëgg soo léegi nag ma ñëw nag si waaye gis ngeen ya, gis ci na suma am ganar ba pere ak suma green seasoning moy sauce verte mom la ko gi ngeen seasoning bu em la fa def rek rek tamit buguma tamit <clears throat> des seasoning ba nga xamne seasoning bi rek soy lek sa sa am sa chicken bi seasoning bi rek nga jot legi ma jël suma seasoning salt bi suy nii kawam rek just a little bit ci kawam waaw seasoning salt bi la jël and then after ma jël. Rosemary parce que fum nek mom moom xam ngeen ne time bi mom su time Christmas ak New Year mom, Rosemary mom doo ko amati fresh one ba dama dem gisuma fa dara man ma enu wuli fin ba waye ben la <laughs> bi dry one bi la so dama ko suyni su kawam rek so léegi nak mu ngi ni dama ko tege bor léegi suma pare tamen ma ñew season nak suma am li di su pare dama ko jir rek def ni dama ko ñew def ci ni tek tankay ak suma am elastic band

beef sorry beef beef not lamb longo fu mu nekk nag ma beef léegi mu ngi nii moom all purpose bi laa use mooy bii moom laa use all purpose seasoning bi soo léegi lii dama lekk over laa amoon fii nii <laughs> dafa ma bëti lu moo ree soo mu ngoog léegi nag ma jaxas ma naan si nag wan leen ndax du <laughs> gis ngeen season bii ah moom tamit saf na de si yi daal yëpp a saf bii green bi laa use fii suy si lifin bi bii ma use all purpose bi so guys gis ngeen fu mu nekk season naa ko nag season naa all purpose seasoning bi si suñ moom laa si suñ am euh, euh, lii bi naka lañ ko defee sax suñ beef steak bi moo nekk nii léegi fu mu nekk dama ko ñëw tegee boor ma def yu sew yi nag su ko defee nag after bii moom dama koo am def si dip lifin bi euh, naka la hay kay ma dee kay leen di si pan lii bi grill pan bi si grill pan bi laa ko def waaw bii moom ma def ko si biir oven bi soo mu ngoog soo leen gis inshallah waaw suma gars fu mu nekk maa ngi def naa suma suma tray bi dama laal lu ci bi def oil si tray bi waaw soo léegi dama ko ñëw a dugal si biir oven bi waaw léegi maa ngi suma steak bi tam mu ngi nii mu dama koo def si fry dama koo fry si dip am grill pan bi and lii chicken wings la mooy bi ma ne dama ko am seasoning noonu maa ngi ko wàccoon mu ngi doon deep fry moom tam dama ko am def dama ko dip in butter ma fryal ko fry ko rek waaw so bii moom xam naa duma wane sax nu ma ko defee parce que maa ngi am special video boo xam ne boobu maa ngi ko film already mu ngi war ñëw xam naa filmoon naa ko depuis si sama bi waaye mu <laughs> moon chance pour dugal ko so xam naa dina ñëw incha allah soon so moo tax bii duma leen wan ma ko defee waaw so so mu ngi nii ba pare ma am fii tamit suma mango couple of things pour salad dafa salade salade bi tamit mango, ngi ko amee si suma channel bi as well dama ko repeatal rek again moom laay defal fii mango apple and then tomatoes plum waaw ñu had a waaw su ko defee mu mun a lii ak tamit this um, uh, pineapple chunks as well ma am fii tamit suma am um, potatoes li dama bëgg a try am rohia, ya, dat ñaam bu defaralon ci channelam bi waaw dat am lifin la sweet sweet potatoes la mu ngi ko defaroon ci channelam bi so mom la bëgg try man tamit as well inshallah rabbi waaw ba fere tamit <clears throat> fi ma ngi amé li ni am seafood lifin bi ni nak rek la mom tamit mom la mix defar ko waaw lool rek la def simple dinner for the family because new year's eve just ma ne ko dee celebrate indoors yaa ma gën a ma gën a xam parce que fi mu nekk moom affaire si moom mooy loolu waaye lu nekk dem nga ko create at home so mu ngoog fii dama ko fooy raab ko waaye soo ko man su ma ko fooyalee rek raab ko si biir daf ko dee ñoral daf dee soft trop dangaa daf ko dee over dama ko bàyyi nii muy cook very well grill roast yeah very nice ngeen ñu ko def neppe dama si yokk tuti ndox pour rek bugg pour mu ñor wa parce que xam nga léegi def steak daf dee mëna a so bu ma ko fa ma defee lifin fi ci bota ba dama si yokk ndox so gis ngeen fekkee da nga bëgg mu gëna ñor mu nga fa faa an wala mu nga faa yokkaan mo ndox dippa ko waaw bàyyi ko nag ba ñor ak tere mom dina braw ma ne ko suñ chicken bi tam mu ngi li fi di cook kan nice mu ngi nanka nanka waaw wax naa ko nag cook bu baax ba pare tamit am jox ma baraan bu rafet so ba mel ni nag mu ngi maa déggal <laughs> waaw suma gars yi léegi fu mu nekk nag suma am sweet petit sweet am sweet petit bi ngi nii maa ngi am fi tamit suma <clears throat> am tray pour dugal ko oven tray pour oven tray wala anything loo am rek waaw so léegi am lu maa def mooy parce que um, foog na ne mën nga use roxi la dafa use on like brown sugar ak tamit plus um, white sugar Why man dama use instead of um, white sugar dama use honey honey mi ni dama use honey Fog na mën nga use honey yes dama ko try for the first time and then maa ngi am brown sugar fii lii ma am fleur de rance ba dama ma am tamit suma vanilla flavoring waaw fog na lii la maa ngi am tamit benn façon flavoring mën naa ko ba def waaye xaaral ma try bi nii rek seet waaw foog naa I can remember dafa njëkkoon a def sukur mhm. si ron dan mu tek si kaw na la ko defé won so man dama ka tek ni sukur si ron den after day nak man ma teg lii si foog naa ne lii du jar sama ko parce que ngeen ko si mom so it's the same process say nak xamante tane man brown sugar la use rek mom mu use wala ak ak brown man dama use brown ak honey so léegi gis ngeen suñ suñ ben ak ñor na xom gis ngeen yo kana fa ndox ba ni ko gi ngeen fi nekk ñor na gis ngeen def na xam soo léegi dama ko bàyyi nii nag mu brown nag mu ko bàyyi nii si am grill bi grill pan bi ma ko jox a very nice brown color waaw soo léegi ñu bàyyi ko mu brown soo gis ngeen léegi léegi naa ko damaa def suma sugar vanilla bi tamit si kaw mu gën koo jox Ini wala regular sugar pada selagi ak yow tamit si ini lii moom su amutoon rek ba genap, xere loolu moom no no, no move, move non non yo moof Zeynab Zeynab yow wax go dama nga dem laan naka ngaa it's not mirror it's remote move Go and land there. <laughs> Go and learn how to say remote, not remote, remote. Okay? So leg mu ne nak nag léegi dama ko ñëw nag dugal nag suma oven bi nag def ko loolu fi nag muy muy ko waaw lii na ne dina yombi de supéré. oh oh oh, oh la la Rohit thank you so much for this recipe. waaw gars maa ngi defar suma seafood bi soo gis ngeen nii dama ko génnee nii soo ko génnee si mbuus bi nii dana afta nga fincin ko nga ferej ko comme nag nga tas ko daal comme nii waaw yëpp nii laa ko def. ma ne ko ne waa suma potato salade bi ngi nii moom dama ko def very simple dafa ma si nen o anything dama jël potato si rek. slice ko ba pare ma def fa am parsley and then ma def fa a little bit of seasoning salt su ma taal seasoning salt bi ak and ma def fa am am mayo loolu rek laa fa def so ma am fii nii bii gis ngeen fii nii nag laa def nen parce que bëgguma def boot nen boot fii nen fii nen so bii laay def nen dama faa nii def si mayonnaise den ma mix ko def ci suma seasoning sol bi mu saf saaf parce que xale yi ñoom defaral naa leen seen chicken bi tamit defar naa ko in pata gis nga nii la moom mel ñoom tam naa leen ko tegal foofu noonu soo gis ngeen <clears throat> maa ngi ron fii ron fii <laughs> waaye mu ngoog moo tax sax mënuma la ñëw woon yëpp waaye anyway yi yëpp maa ngi ko amee suma channel moom couple bi yëpp c'est repeat waaw soo ku bugga rek mën ngaa dem baak soo gisee ani anniversary wala birthday hobby hobbies birthday wala yooyu noonu yii moom mu ngi fa waaw wala diinaa yooyu noonu yi mu ngi fa soo mu ngoog ma def bi nag daw dem layal leen nag si ceebu ba léegi nag suma salade bi ngi mango cucumber tomato yep dafa xala digar nag pineapple and then apple nga apple bi moo xala ceeñ ko la ne moom su mu ko la and then parsley Mom lah def lima ma def suma sauce boobu noonu ma dee defar all the time ma mix ko ak suma seasoning salt bi fu tuuti vinegar and it hat mango and sa, has <laughs> Mango. Is mango your favorite? Yeah. Oh, you love mango. Look, and it's colorful. It's colorful? Yeah. Wow. It's, it's red, orange, yellow, green, green. Wow. It's very colorful. Yeah, and it smells like waffles. Smell like waffles? Yeah. <laughs> so, I'm going to go to my suma I'm going to go to my pare ma ne ko ne pare naa ni suma New Year's Eve dina comme naka laa doon ko waxee woon waaw ne leen ne damaa def dina bu am rek pour famille bi soo dama pare tamit ma jël seen favorite bi ngeen wax ne wax dëgg na yàlla parce que ba ma defee am suma am da nuñ ko defee sax ba ma doon def suma am am xay table dressing ideas the silver one mën na ko ne foog naa ne moo ëppoon favorite waaw ñu bari ñu ne yëpp rafet na waaye ñu ne ñu bari ñu ne silver bi moo nekkoon seen favorite mu ne kon ma indiwaat leen seen favorite indi ko tegal leen ko fii nii ah def ko muy suma am def ko muy suma mu ngi nii ma woon leen lii suñ vegetable si la mhm, moo nekk nii waaw mën na ko ne lii gi ngeen suñ chicken la chicken xëy na xale yi moom yàlla yéen a ma gën a xam léegi léegi ñuy lifin waaye man xaaral rek ma defaral leen fii nii lii xam ne dina leen fii ma am fii nii tamit suma lii crab stick bi la moom laa def nii comme wan naa leen ko bii nii nag moom o oh my god Rohia <coughs> Rohia thank you so much this is very nice oh this is yummy lii mun nga koo lekkee noonu mu ngi saf ne sweet very sweet moo nekk yaam bi te am Rohia la indi woon ko Thanksgiving man tamit na xaar ma try ko is very beautiful is very sweet guys try leen ko is very easy to make as well du la neexee man honey laa ko defee ak brown sugar waaye neex na trop ma def fa fleur de orange ba xet bi mu am sax moo ji moo a fa am xet waaw moo nekk nii bi ma am fi suma bi tamit wan naa leen ko naka laa ko defee. ma am fii tamit suma salade original mi ne is very colorful so mu nii suñ colorful salade bi ah macha allah ma ne ko fii nii ma am suma steak bi moo nekk nii gis ngeen ah, suma steak bi nekk nii léegi muuf ñu am suñ chicken bi moom tam mu ngi nii gis ngeen mu ngi nii ma def ko nii xal ko décorer paj pajal ko nii rek moom mu ngi nii toog moom na def ma déggal nag waaw gis ngeen fu ma ko teg fa la toog soo nii rek la la caalit naa juus ya yàlla caalit naa juus ya <laughs> waaye bu leen ma ko jàppee ah juus dama ko war a indi mu si fëj bi dama ko war a indi teg ko fii ma caalit ko soo mu ngoogu waaye anyway lii moo nekk suñ crisp suñ new years dina soo ñu def ko nii rek tamit waaw war a ñëw rek toog mën a ko ne rek am dina ak famille bi tamit di ñaan yàlla rek tamit ñu ko def ay at yu baree baree bare du ko def together ak suñu famille suñu love one si as well amugo ah, soo mu ngi nii tey di laa leen amaloon ah <coughs> di wax ne incha allah rabi 2022 yar nañu indil lu baree baree bari the ending of 2021 was a little bit you know gën a xam ah of aloon naa saf tuuti waaye tamit duñ di ko naxit ak li ñu ñëw di yàlla waaye mu ngoog kon di wax wax ne rek new year's dinner from me to you ah di appreciation all the time Mana a ah ngoog suma na har nga bok ma nga ngeen bok ko man suma amé bané tamen ngeen bok ko man so len wax thank you so much so li la len amalon le wax ne bu leen fàttee subscribe ah comment and then ngeen share as well dara leen ma nag baat bi dama xala socc loolu la soo mu ngoog lii la that banging it. Apple pie. Get dulu. Apple pie. Look, I'm gonna have to flip. Okay, Mommy, I'm gonna have this one. Look what Mommy made. She made some Mom, Daddy, look at Vegetables. They're not vegetables, they're not. Mm. Oh, I would love to try that one. It's like coconut buns. I don't like coconut buns. You don't like coconut? Yeah. Can I put quick? Open this for me. Okay. Yeah, I love it. macha allah ah ma defoon noonu rek def reer bu simple reer bu em rek si kër gi rek ah ma ne allah am enjoy ak xale yi rek ak njaboot gi ma ne ko ne ba loolu passé ah ma ne ko ne kon naka laa ko waxee rek maa ngi la ñoo ñaanal ma ne ko ne lépp li ngeen ma support rek ma ne ko maa ngi leen see ñaanal waaw parce que dama dee wax ne man tey hum kii Marie Bachir mënumaa toog fii without yéen saa bu nekk ma wax ne mënoon naa def vidéo billahi soo leen ko seetaanul kon tey vidéo bi dina fa yàgg torop torop torop waaw waaye macha allah ngeen jàpp si lool mu ne ko ba fu mu nekk alhamdulilahi rabil alamin youtube monétise nañ ma mu ne ko yëpp ngir yéen alhamdulilahi sant yàlla ah mu ne ko ne di leen wax ne jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf si support su whatever lu ma indi léegi-léegi ma indi naxaar ngeen ànday koo man ma indi bànnee xam ngeen rek léegi-léegi indi suma yu lifin lifin li mu neex ba bugga dee léegi-léegi ma indi suma ngénte yeeg suma taka yeeg yu ken xamut ñew rek ci ruxal la len ko suñu ku ken ah yep ba pare ngeen bugga ko nang ko lol mu neex lol so ma ko 2021 bi lepp lu fi jàll pare di len wax ne lepp lo xamne def nañ ko ta jaaru joon rek ma ngi jéggalu bu baaxa a baax ta xamne du won suma mbibét lepp lo xamne luñ fi def lu baax la ah ma ko ne si am si yalla la sha allah sha allah ma ko di len mané ko di len wax ne jëri ngeen jëf ah ñi ngay ñaan yalla ci wër ba nga xam ñu leen indi moo ci pis inshallah rabbi ci table bi inshallah rabbi ah ñaanal naa leen ziar nalen, leen sargar na leen wax na leen abaraka thank you merci mo mënoo tey di wax làkk yépp dina ko wax tey ah macha allah macha allah jërë ngeen def awma ma seen fay awma seen fay le seasoning bi ah bu leen ko faté am check as well saya bu nekk ma ngeen di advertisement si ah ak leen ak leen ak leneen suñu homemade juice yu neex yi leen yi la tamit ñu ngi koo defar ah mel ne ko yooyu noonu yëpp ngeen ca ko ko bëgg rek mën nga maa contact waaw ngénte yeeg xew yeeg whatever rek si homemade juice yi ma ne ko macha allah kon leen wax ne gars yi lii laa amoon ne xaar ma ñëw rek jànkuwante ak yéen wax leen jërë ngeen jëf di ñaan yàlla defal ñu jàmm si 2022 bu ñëw duga si nii yàlla sargal ñu gis nga Zeyna dama la wax ne dama la wax ne gars yi duga de waaye foog da kon di wax thank you so much jërë ngeen jëf I love you guys ah yal na yàlla defal jàmmi àddina lu bare bare bare bare bare thank you don off ma ne ko ne suma jànxay ñi dañ bëgg ñëw happy new year ñoom tamit ah Zeyda and Betty you guys want to say happy new year they say happy new year to everyone and tell them to, to subscribe to keep subscribing Mm-hmm. Happy New Year. Keep subscribing. Yes. But your name is going to... No, no, they are not me. They Say Happy New Year, everyone. Happy New Year, everyone. Yeah, keep subscribing. Aja, come on. Make sure you subscribe, like, and share. Yeah. And then do what? Um... tot on de notification. Eh, Deze bell. Yay! dengan Ga dengan subscribe. Toen ben ik aku es eerst subscribe. Subscribe gulo, Subscribe len. Ah, maar press the notification bell as well. Ngen share accent hariti, Ah, any video. Bye. Bye. Hmm, Zo help helpen. Niet help helpen. Ah, maar dan kan ik aan Musa, maar ik zie wel Maria, Maria.